abri provisoire lépp nekk ay jafe-jafe yoo xamante ne nii war nañu ko saafaxa waaw loolu ay urgence bokk na ci question bi tubaab bi laajoon Ousmane Sonko keroog lan lan ngay tontu. Mm-hmm. ci waaw ci urgence yi nga xam ne sénégalais yi loolu la ñuy xaar mu ne ko loolu du duñu se du seeni pré préoccupation xaw ma nuñ ko waxee noonu nee ñoom pare wuñ pour loolu daal ah yàlla dogal na nag comme pare wuñ pour. jafe-jafe yi askan bi nekk askan bi nañ toog xaar rek xam ne ubbi tey jàng tey mënut a am seeni occupation ñoom waroon naa bokk ci dund bu seer bi. Mhm. njàng mi njàngale gi mi napp mi faj gi. Mhm. Euh, xëyu ndaw ñi nee naa leen loolu soxlawul am majorité pour régler ko. Mhm. Sénégalais yi xanaa moom majorité intéressé wu leen. parce que ñoom li ñu war a dundee seen dund ñoom yëpp jógewul assemblée. liy dox luy ñoŋal dund dund réew mi maanaam li koy neexal. Mm-hmm. li tax réew mi citoyen di gis seen bopp. Mm-hmm. du assemblée lay jógee. Mm-hmm. loolu la ñëpp war a def seen bopp moo tax koo jox réew mu dem kale naan la jox ma assemblée loolu mooy kaay ma gën laa toroxal parce que li li tax nga jox ko réew mi du du ay reforme déedéet yow réew mi da koo jox pour dundinu askan bi ni ñu ñoŋee nga wàññi courant bi wàññi ndox mi fexe ba nit ñi am xëy Sénégal gis nga képp ku réussir loolu boo fi doon rendi opposant sax kenn du la opposant yi bo gisee ñu doole ci dëkk bi mhm. c'est à dire njiit yi ñoo dul maanaam urgence askan bi duñ ci nekk mhm. loolu rek mooy seen problème mais jamono bi te ngu ñii mu ñëw moom ñoo maanaam ñii moom àdduna bi nguur yi ci àdduna bi yépp ñii ci ñii ci gën a doy waar ñoom même ñoom ñoom nguuru nguuru militaire yi ay Mali Burkina Faso yooyu noonu ñoo yam dund ya réew yooyu dund ñun loolu la ñuy di xam nga ñee dañoo dund coup d'état d'armée ñun coup d'état conscience lañ dund waaw dañoo coup d'état xelu nit ñi après nit ñi voté leen xam nga ñee dañoo coup d'état par les armes ñii xelu nit ñi lañ coup d'état bañ ko coup d'état yi pare dañoo bëgg nag coloniser xel yi am na ko xel yu ñu doog a coloniser pare man militant passif moom xam ngeen man gis nga nu ma leen jàppee ni ma leen xasee jàpp ni militant passif fi ma leen classé moomin xam moomin xamul dara moo tax man samay wax jëmul ci ñoom sympathisant bi lay waxal ak ki nga xamne faragul fenn koku lay waxal waye militant passif aw ma leçon de morale buma len di jox. parce que ay momine lañ. d'accord waaw ay momine lañ Ousmane colonisé na sen xel yi moy limay wax waaw la sante waxi bour rek waaw la sante may sa pend joor buul mbuul yama luma ma wax waaw la sante koku weddi ma dag sa bop sa bat amutul wax samay wax dal waaw la sante mom momina mi mom wax nañ waaw ba pare ñun la bëgg a forcer waaw gi te loolu munta ne ñun mi bëgg a forcer nañu nag léegi yéen samay wax da ngeen di wax waaw loolu munta ne am na ñeneen ñoo xam ne bu ne waxee dëgg dañ naan waaw bu ñu waxee bu waxee leneen ñu ne déet man lu mu wax déet ah loolu leer na man lu mu wax déet lu mu wax déet pour mu leer léegi nag xam nga Ousmane xam nga Ousmane dafa Ousmane du wax lu jëriñ réew xam nga Ousmane dafa samp guerre jàkkaarloog ay nit bëgg leena nap bi mi nekk ci opposition bi ni la doon nappee nit ñi ku wax ñu lay menacer tal sa kër ku wax ñu lay menacer di leen kar ni la ko devié won tamit sampal ko ndënd bam ñu waté pouvoir ni la koy defaat ba xam mom lan la ci mën réew buñ la ko dénkee bo yaakaar dañ la dénk réew mi ne la may nañ la nit ñi yaay ngi nax sa bop dañ na dénk réew mi mais ñu la nit ñi mm-hmm. nit ñi da nga leena momul Ousmane Sonko ñi mo xaritol ñepp ñi mi andal ñepp xam nga lutax ma ànd ak suné waw da nga naan waw ngeen and Ousmane moom xam nga luy problème am déet yow do wax hmm waw rek lu mu wax waw do ko jubanti lijeenti wu faale wu ku man di nomé nak la la ak garat bo meuna am. bu né waw waw bu né déet déet sétal ñim nomé ñep nañu meloon ay jamono tag niñ leen daan tag niñ leen aje xolal tay fi ñu mhm. kan ci man kooku mom waxuma ay waxam. man kooku dama koy teg ak côté ci réew mi fàtte nañ ko. d'accord réew mi est-ce que ah, bi fàtte nañ ko ti fàtte nañ président bi. ayca mami rapidement. Euh, euh, yow xëy na yow nga xam ko après nga wax ma kan mooy président bi gis ci euh, ouverture des classes bi ñu dëgmal. slogan boobu wax ubbi tey jàng tey ñu ñëpp xam nañ ni mënul nekk Sénégal. parce que tout simplement nawet bi euh, dafay euh, jege lool lool euh, ubbite l'école au Sénégal parce que aussi sunu école en général ni mi tawé duñu am temps débarrasser ko wala dindi ko ba élèves yi mën a ibbi tey jàng tey ñaa ngi koy wax sànq am na école yu bari yoo xamante ne actuellement ndox mi mi ngi fa am na école yu bari yoo xamante ne instant bi seen table yi yàqu na et am na école yu bari yoo xamante ne seen i tabaxu classe yàqu na donc ibbi tey jàng tey bi dañ koy wax nii mais euh, mënagul a nekk. je sais pas nag peut-être bu ñu demee euh, ba ci kanam ñu jël ci ay mesures yoo xamante ne mën na mën nañ ko def ba euh, élèves yi bu ñu tijjee tey dinañ mën a commencer jàng tey. ba tey ci wàllum ibbi tey jàng tey bu ñu basé woo ci li nga xamante ne ni moo di euh, euh, parents d'élèves yi war a inscrire seen doom yi day nekk lu lu metti parce que instant bi ndeysaan parents d'élèves yu bëri ñu ngi ñu ngi sëngeem eh, di xalaat eh, nu ñuy inscrire seen njaboot gi di xalaat nu ñuy jëndalee fourniture eh, seen njaboot gi je pense que état waroon na xalaat ci loolu aussi xaw a subventionné je sais pas inscription yi wala nan lay def ba wàññil yenn ci parents d'élèves yi seen seen inscription donc wala sax fourniture école yi c'est vrai que chaque année dañuy gis ñenn ci maire yi ñuy ñuy maye ay fourniture ci yenn école mais loolu je pense que dañ ko war a gën a gën a

boo déggaan élèves yóbbu nañ ko ci privé. Mhm. day fekk mu nekk nulaar mu redoubler woo ilaa ñu dàq ko ci école bu mu nekkoon. Mhm. mais bu ñu demee ba jamono di dox di dox di dox ba privé yi la ñu gën a jox bopp ko public yi yaa problème. Mhm. donc nañu gën may doole public yi. ba nga xamante ne nit ñi dinañ mën a yóbbu seen doom yi ci public yi parce que du ñëpp tamit ñoo am moyen. di fayal seen doom privé. yàlla boo ci am ñaar ñett ba ñeent day nekk problème donc bu ñu bëggee li nga xamante ne ni moo di njàngum Sénégal gën a avancé gën a dox dinañ gëstuwaat public kii gën a euh, renforcer li nga xamante ne ni moo di euh, euh, wu public bi mhm. ba élèves yi nga xamante ne nii seen ay parents seen i doole tollul noonu ñu mën a yóbbu seen doom ci public yi sans problème mais bu ñu xalaatee ni public yi tey bu ñu fa yóbboo seen doom bu ñu jàngee ñaar ñetti fan yeneen yi jours yi ci des débrayage yi dañ lay wax prof bi dafa grève amuñu prof mat amuñu prof SVT te loolu ci public yi rek nga koy dégg mhm. donc jot na tey ñu gëstuwaat public bi defaraat ko mayaat leen doole de sorte que professeurs ya fay nekk dinañ am jumtukaay yu war a mën a tax ñu ñu ñu jàngal élèves yi mm. euh, ci ci anam bu mu gën a bu mu gën a rafetee ci anam bu mu gën a baaxee parce que tamit privé yi fi nekk waruñu waruñu ëpp doole public yi mm. loolu warul mën a nekk parce que ñi eh, professeurs yi nekk ci privé yi professeurs yooyu ñoo nekk ci public yi dañuy préférer dem jàngale gi ci pri ci privé yi que ñu jàngale ci public parce que la ñuy am amaana ci privé bi amuñu ko ci amuñu ko ci ci public yi mm-hmm. c'est ça euh, Aïssatou rapidement am na solo waa ana si euh, li ñuy wax ci rentrée euh, des classes bi rawatina professeurs yi wala ñu wax maîtres yi kon euh, baax na rek li ñuy waxaat encore une fois état wu Sénégal daal dafa war a jàpp ci njàng ak njàngale ndax secteur bu am solo la fii ci réew mi moo tax ñu war cee bàyyi xel saa su nekk ñun li ñuy wax encore une fois rek mooy ni politique daal la ñu war a def ay politique boo xam ni buñ ko defee dinañu mën jàppale élèves yi dinañu mën mën jappalé aussi parents d'élèves yi rawatina ci euh, fourniture yi nga xam dafa cher jamono aussi metti na metti bo euh, fi mu nekk ni mom ñeppay joy situation bi réew mi actuellement ni ñuy waxé ak yeen mom euh, metti na ci waajur yi metti na fépp nag rawatina rentrée bi nga xam ni moy mooy ndax ko gis aussi tamit mom lay joy ko ko gis aussi tamit actuellement da ci wax saa su kon gouvernement bi war jël politique bo xam ni at bu nekk dal xam na ni école day tijji xam na ni parents yi tamit dañuy war a jàppale seen doom yi muy jël politique boo xam ne dinañ leen mën a jàppale saa su nekk aussi tamit ñuy bàyyi xel ni euh, nawet bi nu muy euh, méngoowee ak li nga xam ni moom mooy rentrée des classes kon école yi tam ñu leen di waajal bu baax a baax ndax bu ko defee daal élèves yi tam du am gàllankoor ci seen wàllu jàng. ay ca rentrée des classes bokk euh,